internautes yi dal leen nag jàmm verdict bi ñeel sage femme yi nga xamante ni ñoom lañu daal di nag téye woon ni ki euh, keroog euh, ci coowal soxna astu ba nekkee nag ca diwaanu Louga euh, ca hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga ñeel nag wàllum négligence médicale ak non assistance à une personne en danger lañ leen doon toppee ñoom sage femme yooyu le tax ne nag procès bi nga xamante ni moom lañ leen doon daal defal nag daanaka mercredi bi di ñëw lañu nar a am nag lu leer muy 11 mai gi ñu jëm euh, moo nar a nekk nag verdict ba euh, ci nag ku ci nekk tribunal euh, de grande instance bu Louga Nord la ñu daal di saisir Ah, pour non-assistance à personne en danger ginnaaw décès euh, de couche bu euh, soxna astu soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye euh, tax nag décision délibérée bi mercredi mais mai lañu ko daal di nag nam amal waaye tey jii ci vendredi bi am na ab peine bu toll ci un an de prison boo xamante ni un mois ferme la la ñu demandé contre ñeenti sage-femme yi nga xamante ni ñoom lañ ci daal di nag jàpp procureur bi itam daal di en revanche la relaxe Euh, ci ñaari sage femme yi nga xam ne dañ leen remettre en liberté euh, ci nag début enquête bi euh, ñoom ñëpp comparaître nañu libre ca kanamu juridiction bële tribunal bi daal di rejeter demande de liberté provisoire bi nga xam ne introduire nañ ko par les avocats bu ñeenti sage femme yi ñu placé en détention préventive procès bi ñu ouvrir ko depuis le 27 avril daal di nag ensuite ñu renvoyé ko ci jeudi bile ginnaaw benn requête boo xamante ni nag partie civile produire euh, doon wax ne nag amuñu woon accès au dossier boobaak léegi euh, mbir mi nag dem euh, bu ñu fàttalikoo tool yi mi ngi dooree ci décès bu couche bu ki nga xamante ni moom mooy Astou Soxna le premier avril ci maternité bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga famille bi di njabootu nag ki nga xam ne moo loru estimé ab négligence bu personnel bu établissement public de santé boobule moo waral seen doom di daal di ñàkk bakkanam ñoom ñi nag daal di woon ci partie civile mbir ya nag daal di atterriroon dem ci yoon ñu jàpp ci nag six ci ay sages-femmes yoo xam ne ñoo nekkoon de garde juste boobee nag daal di sax limogé woon ki nga xam ne mooy directeur hôpital boobu la indi fa keneen teg ko fa moom mi ñoom sages-femmes yooyu la nag ñaati ñoom la ñu bàyyi woon bàyyi dëgganduku ndax nag seen wér-gu-yaram moo leen maytu woon ñu leen di téye sous di leen placer sous mandat de dépôt ndax ñoom ñi dañu nekkoon nag ay jigéenu wéru daal di wanu lor ci ñoom ñooñee itam ñeent ñu ñu fa daal di téye woon ba tey jii nag bokk na ci ki nga xam ne moom mooy maîtresse sage femme ba ak ñeneen ñamu fa sekkaloon garde boobule nag ñoom ñëpp procureur nag nee na lañ leen daal di tëj nag un an de prison yoo xam ne benn weer bi dañ koy tëdd kaso door a génn doxiiti nag seeni soxla ginnaaw soutien vague de soutien yu bëri yoo xamante ni nag collectifu sage femme yi yeeg association des sages femmes du Sénégal daal di nañ koy def nag tax